samay mbokk euh, député yi maa ngi leen di nuyu waa Sénégal maa ngi leen di nuyu bu ñu bu ñu bu ñu bu moytuwulee bu ñu moytuwulee dinañ commencé tey ndaje bi ni ñu commencé démb ndaje bi naa leen wax naa leen wax lu tax bu ñu moytuwulee dinañ commencé ndaje bi tey niñ ko commencé démb lu tax ma wax ne buñ ko moytuwulee noonu lañ koy commencé mooy bi ci njëkk mooy man dama bokk ci ñi nga xam ne ba tey jii nii dañoo jàpp ne ministre ak ak directeur général waruñu fi toog ndaxte constitution moo ko dàq ndaxte réglement intérieur assemblée nationale moo ko fi dàq li tax ñu ko doon xeex démb ànduñu ci démb moo tax ànduñu ci tey ñu bëgg a def forcing wax ji mooy bu ñu fi indee loi pour daganal góor jigéen urne bii dinañ ko fokkati table bi dinañ ko fokkati loolu mooy ndeyu wax ji démb buñ fi indiwee loi pour gën a may Macky Sall muy sàcc suufu senegal urne bi dinañ ko fokkati table bi dinañ ci taxaw de la même manière de la même manière buñ fi indee loi pour Macky Sall gën a jël géej gi jox ko doxandeem yi urne bi dinañu jaral ñu taxaw ci kawam Nous fi des loi ngir code du travail urne bi dañ fi table bi dañ fi donc Ben, directeur ak ministre waru fi tok ñaar bureau assemblée nationale muy Ben, benen bi moy lolou kon lañu bëggone ñu jël ko en compte té dañoo japp né ñi nga xamné ay DG lañu ay ministre lañu benn ñu siéger ñaar waxatuma la ñu naan en fait dañuy bok ci tanef bi c'est une incompatibilité absolue ils ne doivent pas siéger donc ni mu amé won demb nous fi nekk waruñu fi nek buñ fi ñëwé ngeen ñuy saga buñ fi ñëwé ngeen ñuy menacer physiquement buñ fi ñëwé ngeen bëgg vous allez continuer à fouler au pied. le règlement intérieur et la constitution ça ne passera pas ça ne passera pas ni aujourd'hui ni demain légui nak j'invite le président du groupe Omar Youm ak les autres présidents de groupe à travailler pour nous am le consensus bi nga xamné mom la askanu Sénégal wax té résultat élection législative yi passé askanu Sénégal mu neex ñu mu naqariñu dafa wax je vous oblige à travailler ensemble je vous oblige à discuter ensemble Ni bëggon nañ majorité ni bëggon nañ majorité c'est à nous de faire l'effort en respectant le règlement intérieur en respectant la constitution c'est à nous de faire l'effort de dialoguer de trouver des consensus pour l'intérêt du peuple sénégalais et non pour l'intérêt de la dynastie Faisal, et non pour l'intérêt du troisième mandat, et non pour l'intérêt que le président Macky Sall, comme Khamnane, empêchement Mouna Am, décès démission Mouna Am, Moutekfi, un président fantoche, je vous remercie.